seen teewaay waaye ginnaaw gërëm bi it ñuy jéggul comme on dit nous présentons euh, vraiment pour ce retard à de presse qui est indépendante de notre volonté Sénégal souvent moom bu tawee rek mën na yàq ay activités yu bari ak Dakar aussi ni mu bindoo euh, mais ñoo ngi leen di dellu di leen li di rafetlu aussi seen teewaay tey jii nag su ngeen gisee ñu woo leen fii bëgg waxtaan ak askanu Sénégal moo tax loolu sax d'ailleurs moo waral waxtaan bi ci wolof rek dañ koy def ndax euh, yàlla may na ma ay yoon ma def le tour du Sénégal dem ba Salémata Saraya zone yi gën a reculé ci réew mi dem ba département bu Oussouye et cetera euh, waaye fu ma fi mas a dem ci wolof laay wax te ñi ngay waxal ñëpp danañ ni la li nga wax xam naa ko très souvent sax mu tontu la ci wolof donc kon ku bëgg a wax biir boo xam ni yi yépp dañ ko bokk kenn ku ci nekk am ci cër soo bëggee message bi jàll wax ko ci wolof dana am solo euh, soxlawul sax may justifier loolu waaye mën naa ko jël rek actuellement ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi tey jii le président de la république séeréer la waaye depuis mu jógee prison ba léegi nii man dégguma discours bu mu def en séeréer buy wax sénégalais yi wolof lay wax wala bu dee ci beneen cadre boo xam ne cadre bu officiel la wax en français ministre aussi ñu ñëpp xam nañ ni joolaa la mu jógee prison ba léegi aussi dégguma discours bu mu def def ko en joolaa buy wax wolof lay wax beneen bi ci tegee mooy su laajee mu wax français mu wax français bu fekkente ni euh, jotaay bi laaj na ko alors kon ci wolof la ñuy wax euh, waxtaan bi xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal euh, mbir bu am solo muy élection législative le 17 novembre 2024 mbir boobu nag am yu ñu ci war a waxtaanee waxtaan ci ak sénégalais yi aussi ndax ñun ñëpp kenn ku ci nekk am na lu la ci nekkal d'abord fi may njëkk a tàmbali sama kàddu ginnaaw bi ma nuyee sénégalais yëpp di wax ni tey jii itam waxtaan bi ñoom laa bëgg a waxal te su ma bëggoon def le tour du Sénégal dana ma jël ay semaines yu bari te ci benn jotaay man na maa wax ak sénégalais yépp kon ñoom rek laa bëgg a waxtaanal tey jii réew mi ñu maase bokk république la république su ma ko doon tënk ci ñaari baat rek mooy mbir bu ñépp maase bokk ndax dafay dellu ci benn baat boo xam ni res mooy la chose publique kon li ñëpp maase bokk xam nañ ni kon doonatul contrairement ak lu mel ni monarchie nga xam ni dafay am un monarque wala muy royaume nga xam ni dafay am buur boo xam ni mooy buur di bummi am droit de vie ak droit de mort ci ñi nga xam ni ñoom lay administrer wala ñoom lay yilif foofu citoyen amu fa waaye ña fa am leneen la ñu ñuy yóbbu alors ñun ci république lañ nekk république boobu nag biñ koy taxawal dañu koy jox ñetti tànk moom ngeen di gën a dégg mais en vrai wolof wos la ñuy wax wos ñetti wos comme cin jigéen ñi dangeen ngeen xam loolu bu ngeen di togg dafay am ñetti pieds yu koy téye mooy tax cin bi mën a toog bu baax donc ñetti piliers yooyu ñoom ñooy ŋànk une république muy ñetti pouvoir pouvoir yooyu dafay am lu ñuy wax l'exécutif l'exécutif ñaari institution la y président de la république bi di institution mais y a gouvernement aussi di institution le premier ministre n'est pas une institution mais gouvernement bi ñooy institution loolu su ngeen demee ci article 6 bu constitution bi da ngeen fekk ñu lim fi institution yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew kon exécutif bi soo ko génnee am na beneen pouvoir boo xam ni moom mooy équilibré yi tamit liggéey bi nekk ci liñu ñu bokk muy le parlementaire am nay jamono sax ñaari néeg la woon li ñu koy waxee ñaari chambre la woon muy assemblée nationale ak sénat bi sénat dina ne waaye beneen bi ko mujjee la moom mooy xëy na li ñuy tuddee la justice conseil constitutionnel cour suprême cour des donc loolu mooy beneen pouvoir bi nga xam ne si moom mooy ñetteelu was bi bi ñu intéressé tey nag mooy le parlement le parlement assemblée nationale bu ngeen demee ci constitution bi da nga fekk diggante article 59 ba article 66 moom moo ciy wax xam xamle lan mooy assemblée nationale assemblée nationale comme ni ko article 59 bi waxee l' assemblée nationale l' représentative de la république du Sénégal porte le nom de assemblée nationale elle exerce le pouvoir législatif elle vote seule les lois contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques kon institution bi nga xam ni tey jii moom la ñu war a dem ci renouveler ko ginnaaw bi nga xamante ni moom moo taxawee la représentation nationale parce que loolu c'est important jëmmi askan bi dëkkee biir Sénégal ñoom ñoom moom souveraineté bi bu ngeen demee ci article 3 bu constitution bi daf ko firndeel la souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l'exerce nag ci deux manières différentes benn bi mooy par la sa représentation beneen bi muy bar voie référendaire de bu dee référendum mu xam nañ lan la am na lu ñu bëgg a doxal ci turu askan bi am na lu ñu bëgg a jëmmal ci turu askan bi wala am na lu ñu bëgg a soppi am na lu ñu bëgg a yokk wala am na lu ñu bëgg a dindi loolu ñu ni kon askan bi moom nañ leen laaj directement am na ay démocratie yoo xam ne ci àdduna bi sax dangay gis ni loolu lu fa yomb la pour ñu def ko am na mbir yoo xam ne kenn mënu ci dem te laaju askan bi parce que ñoom ñoom moom et c'est important te gis naa ni Sénégal dañu am jafe-jafe ci loolu ñun da ngay faral di dégg ñu la nguur gi boroom réew mi boroom réew mi nekkul fii boroom askan wi parce que ñoom ñoom boo demee ci préambule constitution bi liñ ci njëkk a bind mooy le peuple sénégalais kon bu fekkente ni am na ko moom c'est le peuple sénégalais dans son entièreté nit ñëpp ñoo maase moom réew kon bu nee borom réew mi nit ñi ak peuple bi lañu wax waaye ki ki ñuy wax borom réew mi di ko woowee tur woo xam ne sii moom moomu ko kooku surga wu askan bi la surga ku leen di liggéeyal la am pouvoir boo xam ni dañ ko ko dégg jox ko ko mu koy incarné yi tamit alors kon bu dee ci référendum loolu xam nañ ko mais fi jafe-jafe di amee mooy ci représentation bi ñuy wax te loolu mat a taxaw mat a leeral itam dañu ni l'Assemblée nationale ña fa nekk ay député lañ leen tudde ñu ni député yooyu am na ñetti mbir yoo xam ni lañuy ñuy taxawee ci ndomba yi leen jox ñu mën ko def bi si jiitu ñu ni ginnaaw bi nga xamante ni ñoom seen néeg boobu wala seen kenn boobu moom moo teewal askan bi la représentation nationale assemblée la ginnaaw ñoom ñoo teewal askan bi ñoom ñooy seeni ndaw ñett la ñuy séentu ci ñoom ñett benn bi mooy ñoom rek ñoo mën a voté loi yoon wi ñuy tëral ci biir réew mi nga xam ni képp ku ko moy ñu ne la danga nga jalgati yoon ay daan fekk la ci moo xam infraction la moo xam délit la moo xam crime la loolu assemblée nationale rek lañ koy nose bu demoon ba war ko dindi it foofu lañ koy nocce kon sañ-sañ boobu askan bi moom moom moo ko joxe ñoom ñooy voté loi président de la république mënta voté loi gouvernement waxaale wu la xëy na exceptionnellement mën naa bu. crise amee ñu dem ba tollu fenn fi le président mën na gouverner part ordonnance mais loi moom assemblée nationale rek lañ koy nose wala lañ koy tiré tout simplement loolu c'est important nit ñi xam ko fi askan wi di jaar kenn ku ci nekk lan mooy say sañ-sañ fan la tàmbalee fan la yem assemblée nationale lañ koy nose lañ koy nocci kon da ngay gis kon solo si ndekete lii ñu dugmal am te nit ñi war koy war ci yeewu war ko xam te su ma taxawee ci poñ boobu rek da gis ni am nañ ci ay jafe-jafe yu bari boo xoolee suñu texte de loi yi commencé ko ci constitution bi wàcc ci xëñ na loi organique yi ba ci loi ordinaire yi ba bi ngay wàcc ci règlement yi da gis ni ay jafe-jafe yu bari dafay am ci ci ci réew mi ci ni ñu tëggee texte yi dëppoowul ak suñu mbatiit maanaam dëppoowul ak suñu culture bari na mën naa ci site lu baree baree baree baree mën na maa tàmbalee ci constitution bi daan daanaka yem ci itam parce que par exemple si je prends l'article 98 de la constitution ñu ne ñu bu seen député yi ngeen jox sañ-sañ woteetee loi ba pare Sénégal ci lu mu séq ak yeneeni réew bu jàpp jàppatee délégation dem ñu waxtaan ba am lu ñu fa tënk loolu ñu tënk bu mu ñëwee ba wéyale ko ratifié ko bu ñu ko publier au journal officiel loolu mooy tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew mi c'est-à-dire kon la possibilité d'avoir des lois supranationales ay loi yoo xam ne dafay tiim ñun ñi moom ñu ñu dénkoon ni leen yéen yéen a ñu mën a xàllal aw yoon mais loolu ça loolu moo lay wax ne la bu ñu yaakaaree ni kon ñun nous sommes souverains du tout ana souveraineté bi man nga dem négocier ay traité ak ay convention traité convention yooyu ñëw tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew mi te loolu looy waxtaanee rek la ni ko genn kilifa waxoon léeg-léeg sax autour de d'une table lay doon euh, bien arrosé avec du whisky bien fort donc ñoo xam ne si xamuñu fu ñu nekk ñëw ni la lii yi lii dañu ñëw ni la wëy lii dafa am caractère supranational donc il faut ñu harmoniser texte de loi yi nekk Sénégal enjeu yi nekk ci kanam ak mbir yi juddu ak mbir yi jub am ba pare ak li ñuy menacé yooyu yëpp mi nga war a ñëw dal suñu kaw kon dañu am profil yi ñu soxla ñoo xam ne nekkuñu ci par parloo ñoo xam ne xam nañ àdduna bi ni muy doxee xam nañu en fait la géopolitique mondiale xam nañu tamit les enjeux et les défis ki nu gett pour ñu mën a taxaw man a sàmm suñu réew mi réew mi ñëpp d' accord ñëpp d' accord léegi man déglu naa koo déglu finalement fi muy wax da yóbbale fa doom mooy dafa mel ni jikko yi ñoo yàqu nit ñi ñoo am problème ay bâtiment yu yàqu ma des na ko defar deuxième guerre mondiale bi mu jeexee gis nañ ay réew daanaka yu ñu rasé mën naa ci cité lu mel ni Allemagne tey jii mooy la première puissance en Europe bâtiment yi ñu daanee lool ay defaraat nañ ñu ko gën mais nit su xisee yàqu mi si fini adduna tukki na parce que kooku mooy ci war a defar lu mu mën a doon bu yàqoo butul defaru dara te ñun ñëpp xam nañ ni problème bi gën a rëy bi ñu am actuellement problème bu valeur la te loolu saafara la laaj te am na yeneen yu ñuy gete yoo xam ni dafa war a loolu dooleeku si kon loolu benn poñ la mooy waxeetlu waat mais yemul ci loolu ñoom ñooy contrôler l'action du gouvernement le gouvernement wax naa ko sànq puisque yenn ñaari institution yi euh, euh, ñu ko doon jëm supprimer je pense que loi bi jàll loolu ndax donc am nañ six euh, institutions muy CSE ak HCCT alors gouvernement bi moom tamit institution la le gouvernement bi Sénégal mooy le premier ministre ak l'ensemble des ministres boo leen boole ginnaaw ñoom ñooy jëmmal gis-gis ak bëgg-bëgg ak nameel bi président de la république am ñooñu ñu ni leen kat ñun dañu leen dénk lu rëy mooy dañ leen jox suñu kàddu d'abord dañu leen jox suñu alal yéen ñii fi toog man ñii di wax ñi toog ci table bi ak mbooleem kuy sénégalais mu néew ak mu bari yaa ngi participer ci gafakat réew mi ci soxna si jaay gerte caaf fii ba ci ambulant bi dox kenn ku ci nekk yaa ngi participer ci budget léegi nag ginnaaw li fi def askan bi lañ koy defal ñu ni ah, ñun kat jël nañ suñu kàddu ak suñu alal ak sax daanaka suñu ëllëg dénk ko benn jëmm moom institution la jëmm bi rek institution la du présidence mooy institution mais le président de la République mooy institution moom mu signé décret boo xam ni fal na gouvernement boo xam ne ñoom it institution la kon kooku am na doole joo xam ne askan bi ñoo ko jox te bi rek la ko mën a jël waaye li si dooleeku mooy gouvernement boobu war a jëmmal ay gis-gisam ak bëggam-bëggam ak nammeelam ñu ne ah ñii doole ji ñu leen jox bari na kon ñun askan bi nañu gisewaat ci suñu biir ginnaaw ñoo jox kii cër bi ñu ko jox nañu gise suñu biir tànnaat nit ñoo xam ni président du leen yilif bis bu nekk ngeen dégg débat yoo xam ne souvent ngeen koy suscité di ko yëkkati la séparation des pouvoirs non seulement du ko yilif waaye seeni sañ-sañ ak seen kàttan dañ ko teqale dañ ko teqale jotewuñu dara ñu ni kon ñooñu la ñuy tànn pour ñu mën a saytu ñii li ñuy defal askan bi parce que les 18 millions de Sénégalais wala 19 millions de Sénégalais ñun ñëpp mën nañoo jógandoo ni dañuy contrôler l'action du gouvernement kon loolu nañ ko délégué mais foofu dafa am jafe-jafe bu rëy boo xam ne daf ci am ñun bi ñu tànnee ba noppi bëgg ni léegi nañ seetaat suñu biir dafay mel ni régime bi daf ñuy wax ni non déedéet yéen amu leen xam-xam ak xel bu mën a def un choix juste mënu leen a sax ku am solo ce que vous allez mooy bàyyi leen ñun ci suñu biir ñu daje ci benn barab waxtaan ci suñu biir ñun ñi nga xam ne ñoo bokk daayira parti yi kan mënees na ko assigné ci ay daayira ñu ñu bokk parti wala ñun ñu bokk gis-gis bokk bëgg-bëgg am idéologie ñu waxtaan suñu biir proposé waat leen koo xam ne moo ñuy moo ñuy contrôlé je ne ndax gis ngeen man li ma bëgg a wax am déet maanaam benn élève bu war a dem examen daan ni mais man maay tànn ki may surveiller wala ba un transporteur buy créer fi mu nekk nii euh, euh, benn société de transport am daan ne waaye nag man maay choisir le policier bi contrôler samay samay oto mais loolu du am njub loolu bokkul ci jub jubal jubal loolu tey na xel loolu moo waral Sénégal looxoor gu fi am souvent on parle de la justice mais problème bi gën a am mooy connivence bi am entre l'exécutif et le parlement parce que ñoo bokk seen mbir ñoo bokk seen seen seen seen seen mbaxal ñooy bokk defar seen mbaxalu tàkkusaan waxtaane li ñuy waxtaane ba noppi ñëw dóoraat fi mu nekk nii askan bi parce que jàpp nañ ni askan bi amuñu xel amuñu xam-xam pour mën a désigner sax ku leen représenté te l' assemblée nationale comme son leen l' indique mais c' est l' assemblée nationale ce n' est de parti ou l' assemblée de de des partis politiques mais c' est l' du peuple assemblée boobu kon ni mu waroon a demee normalement te ñun ñu bëgg loolu te danañu taxaw temm ci loolu mën a am Sénégal mooy dafay tàmbalee ci koñ yi ci kër yi koñ bu ci nekk nit ñi dëkk ñoom ñoo ci seen biir xam nañ fa ñu jub xam nañ ñu bëgg koñ ba xam nañ ñi am le sens euh, de de de de responsabilité xam nañu ñi nga xam ni am nañu certaines valeurs yoo xam ne ñu ngi koy dund ñuy dund ak ñoom chaque tous les jours te tricher wuñ ci xam xammee nañ leen mais ñooñu mat nañ ay ndaw parce que yéen ñii kenn du ci jël alalam mais di ko dénk génn ci mbedd mi rek taseeg benn waaye ni ko am ma dénk la xaalis bi doo ko def te li ñuy dénk l'exécutif la moo ëpp xaalis parce que suñu ëllëg sax ci la aju kon suñu waree contrôler man li ma jàpp ni moo war a am mooy le peuple ci boppam ñoo war a désigner bala ñoo sax di voter ñoo war a désigner ñi leen di taxawal localement noonu la war a def chaque département ñu tàmbalee ci koñ yi di désigner nit ñi di leen désigner di leen désigner ba ñoo ñuy désigner woon taxaw ni diw mii ak diw mii la ñu tànn ñu taxawal la département de de Kédougou le département de Salémata le département de Matam le département de tel et tel et tel et nit ñi nekk ca dëkk ba ñoom ñoo war a tànn ñi leen di euh, taxawal mais ce qui se passe bizarrement mooy. jox leen ma seen kàddu jox ma seen doole jox ma seen ëllëg ñu ne ah constitution bi prévoir prévoiroon na séparation des pouvoirs am na beneen pouvoir bu tollook yow bi nga am président léegi nag ñun dañuy tànn ndaw yooyu pour ñu saytu li ngay def ñu ne ah non non non loolu su ko defee erreur la ñun on a besoin de majorité pour mën a liggéey mais loolu ay nax la. ban majorité nga soxla pour liggéey administration centrale ci ndigalu kan la nekk ne l'exécutif la gouvernement ndax yor nañu seen budget di ko doxal il est vrai que ni en fait euh, euh, parlement bi ñoom ñooy voté budget bi boo amee lu ñu ci war a soppi yi tamit mooy loi de finances rectificative ñoom ñoo ko war a def loolu xam na xamees na ko mais ci seen loxo lañ koy teg ñoom ñoo koy doxal ñoo yor armée ñoo yor FDS yi ñoom ñoo yor euh, trésor bi ñoom ñoo yor en fait toute l'administration lu leen téye liggéey ñoo ngi liggéey mais loolu ci la ñu doon dóore Senghor ci la ñu dóor a dóor a dóor ba suñu ndigg yi ab Abdou Diouf ñëw dóor ñu cee door a door a dóor ba doggali ñëw Abdoulaye Wade ñëw dóor ñu cee dóor ba ñuy bëgg a dee Macky Sall ñëw doggali ñëw mooy ni dama soxla majorité pour mën a liggéey du tout demeewul noonu te je pense que li may wax ni au mois bu ci sénégal yi d'accord xam naa kenn koo xam ne d'accord na ci muy le premier ministre Ousmane Sonko il l'a dit bi fi nekk soxlawul majorité pour liggéey lan lañ soxla des sénégalais épris de justice de sénégalais yoo xam ne xam nañ lan mooy responsabilité yi ñu teg ci seen i wagg ñu dem assemblée pour man lépp lu fu ñëw du ñu dem ci mécanicité bi nga xam ni moom la nit ki di dox moo xam majorité mécanique la wala minorité mécanique kenn ku ci nekk di déglu yan directive nga jëlee ci sa parti mais loolu moo gàllankoor réew mi. liggéey bi ñu war a liggéey foofu noonu warut a jóge ci ay directive de parti benn groupe groupuscule mi ngi war a jóge ci lan mi ngi war a jóge ci askan wi ñu désigné mu leer la ni ñooñu amuñu benn kilifa bu ñuy rendre compte bu dul le pëpp sénégalais peuple boobu nga xam ne moo su war a kon su fekkente ni nit ki dafa. dénk fii ñu daje ma ni leen mankat kat damaa ñëw daje nañu fii mais damaa bëgg ngeen fal ma yéen ñëpp jox ma seen kàddu ma jiite leen gars yi ne ah waa ji moom li muy laaj yomb na di waa d'accord jox nañ la ko léegi léegi ma ne ah léegi li nekk seen i poos lépp léegi làmb leen ko te jox ma ko itam ah pour lan ma ni non dama leen ciy liggéeyal ngeen ni waa d'accord dañ jox la ko mais ci condition dañuy tànnaat ci suñu biir ay nit ñoo xam ni dinañ la mën a contrôler ndax li nga wax ak ñun da nga ko respecté te dañ koy dooleel aussi ba nga xam ni bu fekkente ni nar ngaa def lu ëppal ñoom man nañ la arrêté ni la non lii waroo koo def man leen non loolu su ngeen ko defee da ngeen di yàq suñu suñu dil bi léegi man j'ai des amis am naa sama benn doomu nijaay am naa sama soxna léegi bàyyil ma ñëw proposer leen ñooñu ñooñu ñu contrôler ma Vous pensez que ça c'est juste non parlons franchement sérieusement vous pensez que ça c'est juste non loolu bokkul ci njub bokkul ci maandute bokkul ci njub mais bokkul ci maandute aussi jox leen ma doole yëpp ba noppi mais ki may contrôler tamit xaaral ma indi sama copain mu contrôler ma mais mais man daf ma jaaxal c'est pourquoi toujours aussi bi exécutif bi bëggee ñu ni Mamadou Dia il gêne un peu ubbi na ay front yu baree bare bari mais assemblée lañ dem ñu rendi ko parce que effectivement ñu fa nekk li ñu gën a am ci euh, reconnaissance wala boog redevabilité ci ki leen dugal ci list bi la muy seen parti mais du ci peuple bi loolu tax ñu fi dégg député Ablaye Wade député Macky Sall député Abdou Diouf député Senghor mais effectivement mais kooku boo doonee député moo la ko def parce que nit ñee ñëw coow yi am mu ne non damay imposer sans volonté diw sàngam mooy nekk ci liste yi gis nga loolu la jub jubal jubbanti foofu la njëkk a tàmbalee ñu fexe bi équilibre pouvoir yi séparation de pouvoir doon lu effective waaye tamit ñu fexe ba député yi doon des députés du peuple di jëlee ay ndigal ci askan bi kese xam ni dañu war a dellu rendre compte askan bi kese mais waruñu aju ci parti kese ñu leen di jox ay directives loolu moo ñu indil loo xool yëpp ci la moom rendee du Dia justice ñëw àggale la ci des durant Abdou Diouf li mu fi nekk lépp man jàppoon naa ci bi may gone dama yaakaar ne Abdoulaye Wade daa dëkk Rebeuss tout temps quasiment yu mel noonu procédé yooyu lañu utiliser assemblée bi ñëw moom bi mu ñëwee tamit ñu yaakaar ne jaar na ci ay jaar-jaar yoo xam ne am na yoo xam ne dana ko éviter 2004 ñu ñëpp ñoo ngi fàttaliku acte d'accusation bi ñu koy def assemblée nationale lañ ko defee l'ancien président de la république Macky Sall moo ko defee woon ñu rendi Idrissa Seck moom it ba ñu koy rendi gis nga nañ def président assemblée fal lañ ko pour cinq ans Abdoulaye Wade mere ne ko ne léegi eh député yi voté leen ko wàññi mandat bi indi ko pour un an. mais ce n'est sérieux ça loolu ngeen jàpp ni lu sérieux et on chante ni ñun ci démocratie lañ nekk ñun nous sommes un peuple libre du tout libre ñu parce que la liberté voudrait que loolu suy am sañ-sañ boobu askan bi moo ko séddalee kenn warul mën a jaar ci assemblée bi say bëgg-bëgg ak sa bànneexu bopp nga doxal ko fa warul mën nekk dafa war a nekk dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. ci ñëw ndax. c'est tellement frais et récent que ñi doon jooy noppee ñi ci amoon ay séquelles noppee gis nañ lu dem xew fii ba nga xam ni la quatorzième législature mooy bi yées ci histoire politique bu Sénégal saagante xastante ŋàññante alors ko foofu par excellence c'est le lieu des débats kon ay boroom xam-xam ñoo fa war a dem ay nit ñoo xam ni bëgg nañu réew mi ay nit ñoo xam ne si mën nañ apporter réew mi dara ay nit ñoo xam ne it du ñu ay benn wii wii man de loi dañu koy indi man xaw ma lu ci nekk dama naan lu président wax rek mais c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux 165 député yi nekk assemblée nationale kenn ku ci nekk war nga am sa autonomie sa liberté ci lu fa ñëw nga xool ko en âme et conscience li la sa xam-xam may nga saytu ko. su ko matewul nga dem wuti ñu am xam-xam ba ñu jàppale la ci ba li ngay def mu doon sa aqulaay taala mu leer la ni intérêt supérieur nation bi nga ci mais dommage du demee noonu lan lañ joxe ci directeur bu parti bi woo nañ président groupe parlementaire bi lii lañ ko wax mu convoqué leen lii la président santaane ñu def ko et vous pensez que on a une assemblée nationale et loolu la ñu bëgg a jaayaat nit ñi lool moo war a wéy Sénégal non on a des députés de parti mais on n'a pas des députés du peuple moo tax ñun ñu wax nii li ñu gëm te gëm ko muy taxawu jikko yi li ñu gëm mu une assemblée nationale muy ngombalaan ak ay ndaw muy euh, ay député yoo xam ni askan bi rek ñooy seen patron loolu la askan bi wala xeex pour rupture boobu am pour ñu mën a téye dëgg dëgg dëgg sañ-sañ yi ñu amoon ñu téye bu dul loolu xam naxante la tey marché muusante moom ku gën a muus mën ngaa jàll dem sa mais ci ak muusante lañ nekk fi mu nekk nii ci naxante lañ nekk loolu kon dañu ko war a dindi nit ki waroo man ni maa yor doole ji dañ may contrôler ba pare nga dem maay proposé waat ki may contrôler ce n'est pas juste bokkul ci mandute bokkul ci ak njub aussi alors ñoom ñoo war a évaluer aussi les politiques publiques xalaat nos ak li nu jëmmal ci li askan yu maase bokk ñu koy jariñoo lépp lu ñu ci taxawal def ko ci turu askan bi jëfandikoo alalu askan bi loola député yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo koy xayma waxtu wu ñëri xool la ca dox la ca doxul la ca la ca sooxe yi tam woo askan wi wala ñu woo leen wax ak askan wi rendre leen compte fidèlement ci li xaw mais loolu est-ce que yéen a ngi koy gis Sénégal mënul am mënul am parce que dañ ñu kompaloo ca kaw ba noppi mooy man ak yow ñoo bokk mbuus su ma yoree exécutif bi danaa fexe ba ñi ma bokkoon mbuus yi tamit ñu dem fële ñoom ñoo mooy contrôler ñooy bokk reerandoo wala ñu añandoo wala ñu naanandoo suñu café mais ñoo ñu wuute wuñu ñoo bokk gis-gis ñoo bokk ay bëgg-bëgg te seen i parti dañuy am ay intérêt yoo xam ne si c'est des intérêts partisans dañuy am gis-gis ku ci jot pouvoir li ngay njëkk xalaat mooy naka laay fexe ba amaat beneen dolli kon da ngay nekk ci yeneen disposition nan laay amee. taxawale samay acquis mais nan laay fexe yi tamit ba yaatal loolu ba ñeneen ñoo xam ne mën naa leen a dugal sax pour mën a préserver sama pouvoir mais bi yem ci loolu ñi ko bëgg yi tamit ci disposition yi lay nekk nan laa koy galgale nan laay ñaawale nan laay nangam kon loolu tant que ñoo ngi ci wër-wërloo boobu jafe-jafe du jógee ci biir réew mi je ne ndax li may wax leer na am déet alors kon yell na ci ñun li ñu bëgg te woote ko mooy loolu dañ ko war a dakkal waratul continuer di am Sénégal te maa ngi yaakaar ni tey ñi ngànk régime bi danañ nekk ci disposition yooyu ci du ñu wut majorité à l'Assemblée nationale man yaakaar naa ni ñoom li ñu war a gën a jiital mooy fexe ba am ay député yoo xam ni wóor na leen nit ñii kenn du seen chef ku dul askan bi kese deesu leen xoqatal deesu leen tiital mais itam manet mënu faa jaar ba tax ñu def defloo leen loo xam dey gaañ askan bi assemblée national bii ñu ni ñooy contrôler l'action du gouvernement ñoo évaluer les politiques publiques mais loolu depuis kañ lañ ko tàmbalee def ban jeexit lañ gis mu amal ñu ko en tout cas régime bi fi jógee rek ñu ni wóob sàccee gars yi jël nañ lii jël nañ laa jël nañ la li ku fi jógee ñu daal di ñëw tuumaal ñi fi nekkoon jël nañ lii jël nañ laa jël nañ leen mais ana assemblée nationale mi waroon évaluer les politiques publiques ana assemblée nationale mi waroon a contrôler l'action du gouvernement parce que talu ko booba man daal man damaa tàccu ma nettali leen ci benn anecdote yàgg na ci jamonoy Senghor dama dégg benn bande bu kilifa gu mag ci réew mi wax mën naa ko tudd sëñ Fallou Mbacké fekk ñuy tànn ay député mu wax ci bànd bi loola la ñuy waajal te loola gis naa ni tàccu rek la te kii mën na ko day mel ni xëñ na mën nañ jàpp ni luy caricaturer la mais seetluwaatal li mu wax dafay mel ni mooy li am assemblée mën a tàcc dong man ak yow ñoo bokk camp loo wax ñu tàcc man ak yow bokkuñoo camp booy wax du la déglu sax yuuxoo saaga ba gis ngeen sax li amoon ci émission bañ arrêté ay député xeexoo mais ana xalaat yi ana xam-xam ana xeltu kon suñu yëkkatee ay korfeñ di ko dóorante kay moo lay wax ni wax dëgg yàlla lii ma lim léegi nii mais dañ cee euh, dañ cee gat puisque gat nañ ci nag li fi des rek mooy kenn ku ci nekk jëfandikoo sa doole bopp ak lan làmmiñu yaaw ñaaw mën na maa wax lu ñaaw mën na maa jëf lu ñaaw mais est ce que loolu taxoon ñu fal leen sànq li ma wax ci article 59 bi est ce que tudd na loolu tudd loolu dañoo dénk gouvernement taxawal ko muy institution ñu war a liggéey alali réew mi yëpp ñu teg ko seen loxo saytu leen dee leen xayma li ñuy def dee leen xalal yoon askan bi kon loolu la ñuy xaar ci député ma yaakaar ne loolu nag dafa soxla profil yu am solo ay nit ñoo xam ni lu mu néew néew néew danañu am lu mu am ci xam-xam ndax kenn dajale lu xam-xam yëpp yàlla rek ay ci xam lépp kon dana am lu mu xam waaye dana bëgg réew ba réew mi jaral ko lépp jaral ko boppam jaral ko njabootam waaye dana doon koo xam ni du ragal bu naan xuux rek mu daw parce que enjeu yi dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa rëy dégg ngeen li xew benn kilifa ci l'armée bu France te jiite woon ko dégg ngeen wax yi mu wax ak nu mën a xew at yi di ñëw faaw ñu dellusiwaat Afrique teg teg seen loxo dafa am mbir yu nekk ci suñu kanam kon loolu dafa soxla ñu génn ci ak par parloo ak par parloo far mën naa nekk mais par parloo baaxul. te gis naa ni jogante yi ñu bëgg a dem ci par par loolu lañ ko war a tegaat ba tax na jàpp naa ni régime bi fi nekk warul am majorité waaye ñii fi nekkoon aussi benn bokk yaakaar ak ñi génne ci seen i franc man de awma sañ-sañ di wax ni waruñoo am nangam ak war nañoo am nangam ndax sénégalais yi ñoo moom mbir yi man li may sama cër mooy ma leeral kese waaye su aju woon ci man donc jàpp naa ni waruñoo am sax benn député du ñu am sax benn député ñi bokkoon ci benn bokk yaakaar ak ku ca jóge benn député ëpp na ci ñoom alors loolu kon dafay lu am solo loo xam ni dana mat na mat na bàyyi xel su ko defee toujours yàgg nañu metitlu li ma wax sànq mécanicité wu bi am euh, assemblée nationale souvent dañuy joxeñ benn bi ni majorité mécanique mais minorité mécanique aussi noonu la amee gis nga déjà sax ay débat yu amul benn njariñ boo xam ne moom la ñuy entretenir parce que jàpp nañ ni askan bi amuñu xel man nag loolu bokk na ci lu ma naqari askan bi dañ leen war a nawloo nit mënoo ko jiitee te nawloo woo ko nit mënoo ko jiite te nawloo woo ko dañ leen war a nawloo fan lañu mën a teg xeeb sénégalais yi ba ñu yéen tuuti ngeen ci mën a tànn nit ku mën a saytu gouvernement kon man maa lay ñëw proposer une liste boo xam ne si ci ngay sukkandiku pour tànn ñi may saytu moo tax ñun li ñu proposé li ñu xalaat te di ko wax ak sénégalais yi tey jii mooy 46 départements yi ak ñi nekk ci diaspora bi yéen yéen a dëkk yéen a xamante ñun du ñu ñëw mukk naan leen ñu woteel leen ñu ci kii li ñu leen di wax mooy ni pouvoir bi askan bi ñoo ko moom kon man du sama mbir du mbiru taxawu jikko yi du mbiru plateforme yi ñu ci nekk ak ñi ñuy waxtaanal di du seen mbir aussi yéen journalistes yi kese mbiru sénégalais yépp kon ñi nekk ci gox yi nañu tànn ay jigéen yu ko mate tànn ay góor yu ko mate jox leen ni ñun dañ leen porté ci suñu liste xam nga ñoom kon ñun ñu yilifuñu leen kooku ñun ëllëg gi si biir gi kenn mënta xalaat ñu am benn sañ-sañ ci ñoom nan leen def leen lii ak bàyyi leen lii yéen askan bi yéen a moom loolu la constitution bi wax article 3 de la constitution waaye yëmul ci yéen a moom dafa ni seen moomeel googu ni ngeen koy firndele ci ñaari anam la mooy ci voie de référendum walla ci ñi ngeen tànn mais askan bi tànnul désignation askan bi defu ko dañ ne ko doo nit ku mûr doo nit ko xam doo nit ko ñor kon mënoo tànn léegi bàyyil ñu proposé la ay nit léegi nag nga jox ñu sa kàddu ci kooku kooku nga xam ne maa moom ñoo bokk mbaquus kooku nga xam ne man ak moom ñoo bokk mbuus kooku nga xam ne man ak moom duna ñu juyoo kooku moom mooy contrôler mais kooku kon lan moo leen man a surprendre ci régime bu fi jógee ñun leen gaay yi yo yóbbu nañ keesu réew ma warul mën a nekk parce que contrôle bi du am dañoo yàq FDS yi rek naan gars yi ñoo ngi joxe ay 1000 francs léeg-léeg dërëm ak ñaar dërëm dégg ngeen dërëm ak ñaar dërëm xam ngeen ko gaay yi dañuy samp ay samp ak ay dërëm ay ñaar dërëm ñu demee noonu yooyu gars yi dawal xam nañ ko xam naa am na gaay yi boo xam fii sax mais loolu am na ñoo xam ñoom samp ñu dërëm ay junni la ñuy samp ay millions voire sax ay milliards effectivement parce que li ko waral mooy ni dente d'intérêt moo am dès le départ ci ñoo bokk mbuus li xale yi wax sama kës gaañ nga léegi man man lañ jox baat bi mais kaay sama kës gaañ yaa may contrôlé fan nga lay contrôlé dama naan la damay def li ma bëgg a def non seulement maa lay jox ndigal waaye am jàppal ci lii loolu bokkul ci pour emprunter un benn expression bu ancien régime bi fi ne nekkoon une gouvernance sobre et vertueuse bokkul ci wax dëgg yàlla bokkul ci ak njub waaye nag pour delsi ci lii xew tey jii ñu ni jub jubal jubanti lii bokkul ci njub te ku nekkul ci njub juboo te ku jubul mënoo jubal te ku jubul mënoo jubante dara ndax yow lañu war a jubanti loolu mooy li am il faudrait que loolu rupture bi commencé foofu ñu am de vrais députés du peuple askan wi di tànnal seen bopp ci désignation bi d'abord avant vote bi di ñëw mais loolu dañ ko xañ askan bi parce que nawloowuñu askanu Sénégal et sama me fait mal ce peuple là muy askan wu xaraj askan boo xam ne les acteurs politiques jàpp nañ ni fi mu ne yeewuñu waaye lu ñuy bëgg a def sax askan bi xam nañ kon nañ leen dellu nawloo jox leen cër bi nga xam ne ñoom ñoo moom